ñun bu ñu nekkee xaleel am juróomi at dañu doon jël benn kayit bënn ko def ci wëñ takk ko ci benn bant di di daw ci jamonoy nawet bi di daw bu ñuy daw di di lëppalëpp yi dañuy foog ne ko beneen lëppalëpp mooy naaw su ko defee ñu mën ko jàpp loolu doon lañ ko fayee bi ñu nekkee xale amoon ñeenti at ba juróomi at ba juróom benn at bon quand nous étions petits euh, à l'âge de quatre cinq jusqu'à 6 ans au Sénégal, à Dakar. On prenait un, bout, un, petit bout de papier attaché avec un fil, avec un bâton. Euh, pendant le, le, mois de plus on faisait courir derrière les papillons. Ils, faisaient, ils pensaient que c'était notre papillon, on fait ça pour les attraper quoi.